Malick Malick rek ma wax ndànk boo bëggee kon nag Malick <laughs> mais bàyyi ñu def benn concept boo xam ne que ni. yaakaar naa ni Sénégal yëpp dañu cee ànd. yendu ak waaw yendu ak euh, lu bees la loo xamante ni dañu ko bëgg a jagleel auditeurs yi mhm. saa yu ñu amee gan gu mag rek mhm. euh, la jeeg bi dalal la mhm. euh, añ bi dégg naa pare na ndax sànq woo nga waali nee na la ndékki na ba pare man dama foogoon ni da ngay ndékkir waa yàlla damaa bëggoon mu ñëw ndékki si xam nga ñun dañoo ñeme yéex a bu ñu invité yendu dañuy yéex dañuy yéex a ñëw donc yendu Sénégal yendu <laughs> Sénégal donc fii la añee àndandoo ak Waly Seck yow tubaarkàlla jeeg néeg nga dalal dalal mm. dalal ko waaye ñun sa càmmin yii dañu laa bëgg a dar <laughs> parce que dañoo xam ne fii renfort wóorul jar na renfort maanaam lu amul renfort ma fi ma jëm jar na renfort Sénégal ma fi ma jëm jar na Mati tey xam nga ne lu ñuy wax tox sa bënn saañ bëree ndax boo gisee tey King FM taxawee taxawaay bu mel nii dafa bëgg rek tey ay auditeur am mhm. bëgg rawatina internet mhm. ndax bëgg dafa fort bëgg koo dul jot nag bés bu ne moo rawati waali Sénégal la mhm. saafara mbooloolu ñëpp ci am wàll ah, donc nag ñu àndil leen ko du wax lu ndaw de <laughs> exsa deg sa wax boobu Malick waxul li mu wax nii dama ci teg li ngoom bu ñu dagg la ku romb da ngay bëgg a tàq ndaw loolu ndaw daxaar ndaw daxaar daxaar bu ñu jàmm tekk <laughs> lii mbaa jàmm la. ma ne teenu lem la ku ci mandi dee. Pape gàtt gàtt xam nga ne ñun say élément lañu. waa jël bàyyi ko. <laughs> gàtt moom nee naa ko nee naa ko yow loo baax ma ngeer ko. waaye sama ngi leen neexul rek da ko yee. wuy ma waa li neexul neex na kay. <laughs> et puis Adja euh, dañ ci àndandoo nag ak ay partenaires yoo xam ne euh, ñoo ñu fas yéene gunge tey ci yendu ak bi mhm. euh, yendu ak ak Adja Mati Carter mhm. rek sunu gan yi ñuy dalal mhm. ñu ngi àndandoo ak aqua Aquaterra xam nga ak Aquaterra daj dëpp gi laa ko tuddee ndox la boo xam ne tubaarkàll la moom la réew mi xewal laaj ma man jeeg bi yow maa xam nga ni moom rek laay naan yow moo taxit moo tax mu taay fii yow est-ce que xam nga ni dégg naa moom ngay sangoo fan yi sax gis nga Aquaterra moo tax <laughs> <laughs> mbaa jàpp nga Aquaterra. man de moom laa jàpp man damaa bëgg jéggi jëndi ko. je te léegi. Hmm. boo xëyee naan ci butéel bu la neexee dox ba heure bu la neexee. ok góor ba pare ba pare dafa bëri ay format dëgg la dafa bëri ay format hmm. Hmm. donc Aquaterra. am na ndaamali euh, ndox maa ngi ci boutique yi. ndox maa ngi ci grande surface yi. Euh, donc ñoom ñoo ñuy euh, ñoom ñoo ñuy accompagner tey. ci yendu bi. ñu ngi ànd itam ak suñu waa ji. waaw CSB. CSB jili sa xarit. jili baax nee naa ko le monde au du doigt. may may ma dama ko may ma. Ah. jiili dama sol costume Mata Géej. waaw taxaw jàkkaarloog góor ñi nag. mu romb ci yàgg na ma sa jiili xamatuma lu may wax. <laughs> ma ne ko xaritu Pape Cheikh. man la xaritu man la man la soo meeraam yi. donc euh, CSB. Uh-huh. Euh, CSB la ñu àndal. Uh-huh. Euh, d'ailleurs on va ay téléphones. incha auditeurs yi la ñu bëgg a teral. loolu donc dinañu àndandoo ak CSB. Mm-hmm. jiili CSB nga xam ne téléphone Samsung yu baax yi. boo demee showroom CSB. Wow, wow, dara ci la boo demee CSB voilà ci yoon bi CSB CSB Beba CSB CSB donc CSB CSB la ñu àndal ànd itam ak sa partenaire parce que dégg que bi ngay invité Wally Adja Mati pour mu yendu ak yow da ngaa woo ñaaña bu saveur de Ndiaaya parce que léegi dégg naa jéeg ji da ngeen xewal bu ngeen soxlaa ay añ yu baax service traiteur ngeen di woo laaj mënuñ ko tudd ni nga nekk sa kër les cinq dernières minutes ëpp loolu dañuy xëy waaw waaw bàyyi dañuy xëy xëy te mm, bu ñu xëyee alaaji xëy xam nga ñëw roseeg ñu lug ak ñoom seen dafa dul xaj mm-hmm. diggante bi ngay sangoo ko lal ñaaña day yegsi dal ci sa kaw mooy les cinq dernières minutes les cinq dernières minutes moom ñaaña fu mu génn léegi benn jekk amatul jot comme mati nee na noonu la jeeg ji yendoo euh, service traiteur am la wóolu <laughs> euh, bu ko defee añ bi ca kanam <laughs> euh, dañ ci àndandoo ak Wally Seck mm-hmm. Wally nag defe naa ñun bi ñuy ànd ak moom mu ngi bëgg a yàgg dañu fekkee démbam mm-hmm. mu doon xale boo xamee nii dafa teel a doon jàmbaar Euh, lu jiitu sax muy siiwa ah. euh, peut-être nit ñi euh, bi mu siiwee lañu ñu découvrir générosité am waaye bi muy généreux dama toog ak coon Seck bis mu may nettali mhm. bi Wally nekkee xale da daan jékki-jékki rek groupe maire yi yolwaan dëkk ci koñ bi ñëw di gërëm si <laughs> Thione <laughs> ah. <laughs> li waaw yéen moom lu tax ngeen may gërëm si mhm. maire yeeg paa yi ne vraiment ñu ngi lay gërëm parce que ceeb baa ngi ñëw diwlin baa ngi ñëw suukar saa ngi ñëw. te coon joxewu ne waaw loolu. yéen fan ngeen ko jëlee. waaw ah vraiment sa doom ji daal saa yu ñëwee euh, danaan yow yaa ko yabal ci ñun euh, pour mu jox ñu lu ñu dundee pour mu jox ñu lu ñu lu ñu lu ñu añee mm-hmm. lu ñu reere et mm-hmm. tout ça. Mm-hmm. Euh, da daan sàcc ay ceebu pàppam Euh, di sàcc ci ci dundu kër gi ci denrée di mm-hmm. dem di ko jox euh, yalwaankat yeeg mm-hmm. ñoom seen donc tout le temps gars dañ doon ñëw euh, di remercier Thione ak mm-hmm. yeneen i actes yoo xamante ni ñun xam nañu ko ci Faramaren boobu mu jëm nag ci événement bu mag le 27 avril nara amal euh, anniversaire euh, du programme yo xamee ni euh, sénégalais min miin nañu ko. Mhm. anniversaire Wally dafa bok ci agenda culturel. bu Sénégal mhm. motax King FM boudé radio culturelle, culturel la. musicale, mhm. dee musical la. ñu nit dañu koy accompagner ci guddeem gogou motax tay mu fas yendu ak ñun. et puis auditeur yi nak bala ñuy may ay téléphone ak ñom seen. ku duggu dinañ la may bon. ay perruque ak yu bax yo xamee ni. yow min nga ko. ay bon yo xamante ni mu ngi joggé Black booty, on offre ça aux auditeurs. Je xolo sama bob bi bay bi nga xëy ah bi bal xale dañuy renverser ba mu ba bi moy takat wa <laughs> ngi sama cheveux frisé <laughs> frisé. ñu renverser mako ni xam nga ak waaw waaw te Black liñ def. ak fa <laughs> waa yëre bi nag bii nag noo tey du ma ne damay dalal fanaanukaay <laughs> waaw ndax da ngaa du ma ne du ma fanaanukaay la <laughs> ndax da nga lu am solo léegi ah. hmm. professeur sàmm daf ko dëkkal ci suñuy nopp hmm. dëgg la nee na xale kenn du ko jàngal ñaan da nga koy jàngal ni ñuy fayee bor hmm. dëgg la waale loolu mu def man jàpp naan ci fay bor la bokk mm-hmm. mooy teral ñoo xam ne que ni dañ laa mat nday mat la baay mm-hmm. xol bu sedd dafa doyu ñaan Pape Cheikh te loolu mu def noonu mm-hmm. maanaam euh, ñam ko daan defal bu ñu fi nekkee bu ñu fi nekkul seeni doom du ñu ko fàtte te loolu la ñu ko jàppee boo gisee xale yi nañu nañu màbbee ci kawam da xam ni kii am na lu mu def démb mais aussi Baye euh, damay ñëw ci excité sama waa ji waaw cëm alaaji bu ñu nee dañuy yendu ak Waly Seck Waly doomu Faramareen la dëgg la doomu ngéwal la dëgg la waaye dafa am fu mu jiitu damay faral di Euh, bal du moroomu pistolet. déedéet waaye ku ñam micro xam ni doo dem armée. dëgg la. ku ñam micro bu ñu la yóbboo Dakar bàngo nga ñëw. dëgg la loo wax neex na kay. noonu xam nga waali <laughs> King FM. xam nga waal yi. waaye lii neexul. neex na kay. bàyyi ndono dafa neex. ndono dafa neex dafa donnu. dafa donnu waal dafa donnu. Ah. doon ko ndax jàmbaar googu man dama ko xam ci moom ndax yàlla may na ma aussi tamit ma dëkkoon ak moom. Mm-hmm. yar ko. Mm-hmm. Euh, bés ma fekk sama buntu kër. Mm-hmm. Euh, may nu blanche ak samay rakk mu ñëw sol sort na ma grand ex maa nu ma dimbali mu ngir yàlla doox sama papa dama bëgg way ndaw sort su bilaay walaay <laughs> ma ne <laughs> mu def t-shirt mais gis nga sa sort euh, su yaasin puy ndaw su tuut sort <laughs> waali rek war naa ndaw de yàlla bu waaye li neexul rek rek waali bu nekkoon ci waañ du sóor mukk lu tuuti ndax xolam moo ni toll <laughs> bëgg na rek ay àndandoom te loolu dama koy gis ci moom mhm. àndandoo balaay neex li nga mhm. yéene sa bopp nga yéene leen ko moom da nga koy gis ku mu koo xamante ni mi ngi doon ah, bi mu doonee tey waali ba mhm. tey képp ku mu doon àndal gis nañu coppite ci yow ndam wayuloo wala sax bokk ci staff bi waaye nga ànd ak moom rek da lay ah, ji teraanga loolu nag je neexul rek <laughs> <laughs> voilà. <laughs> Euh, Adja mhm. Adja kañ ngay kañ ngay yebbi ma dem jëli teraanga yi. waaw fi ñu toll nii mën ngaa jëli teraanga yi ndax dégg naa ni moom taal na wotoom. fi ñu toll nii direction incha allah almadi. waaw nar a ànd ak moom. serveur bi aussi maa ngi di wax nii fi ñu toll nii mun nañoo commencé. ndax man mhm. damay jékki-jékki rek jukki. waaw waaw rek joxe seen teraanga damay jékki rek jukki. man nag comme dangaa am ñoo tuddee bis bi. waaw damay dem récupérer teraanga yi. su ma dugg see dama lay taasul. teraanga jàngi ku koy nangu. nangu. ku koy nangu. maa nangu. ku koy nangu. maa ku koy nangu. ay ku koy nangu. lii laa la bëgg a taasul léegi nii. maa ngi ñëw. lépp ci ki lay xewee. kon ca kanam incha saale sa bëggeel ma ngi lay rey seetlu naa seetlu naa seetlu man nga lii moo gën soo ma gisee yaa ngi saale sa bëggeel ma tegu ci 12h ba tey ñu ànd ak yéen nee naa la tey dara du fi doy ndax jàppal ni Black mu ngi fi yéen ñi nga xam ne fekk naa leen ci 88 128 mën ngeen a laamisoo ak nga xam ne moo di Wally Seck waaye mën naa leen a teral ci périg yu baax yooyee lii li CSB moom itam teg na fi ñaari téléphone yu baax yoo xam ne yéen la ñu ko jagleel ma ne ko dara du king ma yónnee na let's love line waaye moom ñaañu traiteur bu mag bi Saveur Ndiaye la tuddee li nga xam ne moo di yëfam teewul moom itam mooy kii nar li nga xam ne moo di añ bi walaay laari tey doo ko fi toggee pop pop pop pop yaa ngi may gàtt Ndiaye fi jaar góor ñi lay góor ñi lay am lay yërmande ci anniversaire la dëgmal le 27 incha allahu rabbi moom balaago ndumbe yat ma comme ni ñu koy faral di waxee saa su ne mat nga ma rab mat ma jinne seytaane daali ngir naa Baye Cheikh sax xam naa ni miir na seetlu naa kokiya yóbbu ma man ba pare li ci neex nag tey euh, ñu ngi xaar auditeurs yi ci 88 628 99 90 ak fu waay mënti nekk moo xam Sénégal euh, wala bitim réew. Mhm. parce que euh, xam nga maa ni woon rajo baa ngi mel ni télé. Ah, di nga déglu ba pare nga mën a ci Facebook bi mhm. ci suñu site internet www.kingfm.sn et puis mën ngeen dem ci suñu chaîne YouTube da ngeen di abonné wu comme mhm. ça ngeen di am exclusivité yi actuellement li nga xamante ni mooy xew ci coulisse bi. sa waañ wa fële diggante photo ak vidéo vidéo hein? lépp dañu koy dugalal internautes yi nga xamanteni ñoo abonné wu ci YouTube bi mhm. euh, comme ça à Facebook doog am en direct live donc Wally yexina na on va euh, on va on va lal sunuy basang léegi nii mhm. euh, bu ko défé ñu accueillir ko ci yendu bi mhm. mayé itam ay teraanga yo xamé ni auditeur yi lañu ko bëgg ci 88 628 99 90 Adjamati xamna ni dal limu dégg ni lépp mom lañ fi na a maye mm. faral di wax king yéen ñu def king way ñun itam dañu fexé ba yéen itam ngeen nek sunuy king mm-hmm. di leen sargal bu baax a baax nga ma blague beauté ñëw na te li mu may wax dëgg fa yàlla mm. bu ñu ko waxee bu ñu ko waxul yëpp moom la bëgg waaw bagage yaa ngi nga ah, nga téye waa li neexul rek neex na kay li neexul rek neex na kay li neexul rek rajo cadeau rajo cadeau rajo cadeau rajo ah, événement ma ne ëpp na rajo cadeau rajo événement ba pare nag euh, yendu ak euh, ci King FM li tax mu neex mm-hmm. euh, semaine bu jot nañ leen tànnal ñaar ñoo xamee ni peut-être mm-hmm. dañuy bëggal sénégalais yi mm-hmm. mais nit ñi amuñu accès ci ñoom noonu tey ñu tàmbali ak xale boo xamee ni wax naa ko sànq phénomène la bu ñu jógee ci yendu bi tey euh, jeudi prochain dinañu yendu ak euh, Kouthia <laughs> euh, Kouthia defe naa sa yendu ak moom dina dina dina doon souvenir. loolu lem ak ñun bu ñu fàttalikoo. Mhm. dañ daan yàkkamti ngoon jot. Mhm. wal fajiri. Mhm. ba Adja Mati. fegoo ak Kouthia. loolu bokk na ci depuis que ñu annoncé ni Kouthia fii lay yendu jeudi. bokk na ci li internet yi yàkkamti. di ko laajte Kouthia ak Mati. lañ nag du ñu ko waxagum. mais nañu yendoog faramaaren bi rek Latyr Diop dégg ko. ba pare waaw kay. di nga gis beneen. lii xam naa ni jeudi. Uh-huh. beneen El Hadj Abou ndax xam nga ni alaaji ak mati. waaw gàtt gàtt xam nga ni du yomb. lu garaaw lem ak suukar <laughs> weñ bu ko biiw takk. c'est que loolu ah. Uh. Binata dama koy seetaan du ma yem rek ci déglu ko. non bàyyi. ñàkk koo seetaan wóorul. yàlla nañu yàlla yóbbu. amiin te alxames ak jàmm. <laughs> moppib foo bëgg a jaar yow itam <laughs> ca Paris lu jig ñaag da ngay ñaar yaayu xaadim ba mama ummi Idrissa Gueye sama yaay yaayu xaadim gàcc gàllaa pangam ni muna benela wóor na ma formidable ndab la mooy bàyyi bàyyi antangam papa ngom l'incontournable wa yirim dela bay mamet lay woo

moo tax dama lay dar rek mbay gisoo gisoo ni ma toogee ci wetam man gis naa ni ngeen toogee nii <laughs> te xam naa ci leen de dama ko engagé rek yow ñàkk laa boole ci bis sax est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que xam nga ni maa ngeeg lu toll ci trente parrain pour le vingt sept yow mii sax trente parrain rek man samay parrain rek samay parrain gum ndax fii moo ko jiite di mooy su sulo sulo parrainage de ministre de la ministre de la jeunesse Adja Néné Fatoumata Tall Mbaye te ñun ñëpp ci Saay Kulim Dioum en tout cas bu ca kanamee ma yaatal comme nag euh, euh, waale ngi doog a yegg si uh-huh. yéene yendu ak ñun tey uh-huh. euh, yendu ak auditeurs yu King FM 99 point 4 mujjee juddu lëmbi réew mi saf uh-huh. gaañi Euh, internautes yi euh, ci Facebook bi Twitter mm. Instagram chaîne YouTube bi euh, site internet bi www.kingfm.sn <laughs> Sénégal yépp am mbégte tey fas yéene yendu ak seen doom mm-hmm. ki ñëw tey defe naa ñun ñi ñëpp lu ñu wax ci moom répétition lay nekk bi muy doon phénomène du tay mais li ñu wax sànq rek ci tàmbali bi mooy li mu doon bi mu koy doon du sax du sax tay, mm-hmm. waale ci générosité am Euh, waali ci am jom nangoo liggéey mhm. waali ci fonk ay soppeem mhm. waali ci doon exemple waali ci euh, ascension mhm. macha allah ku lim ku lim yëfi nit boo nit ki boo limee yëppam yaa ko catu mais defe naa daal lu ci ëpp dañuy bàyyi mhm. euh, sénégalais yi euh, euh, am possibilité mhm. waxtaan ak moom yendu ak moom ndax ñu ngi jëm ci bis bu am solo mhm. di le 27 avril di bis boo xamee ni dafa bokk ci agenda culturel bu Sénégal c'est-à-dire patrimoine mën nga am ay at doog koo doon patrimoine mën nga doon tuut tànk ba pare doon ko moom tuut tànk la waaye fexe na ba doon patrimoine fexe na ba boole boppam ci réew mi ci la bokk bokk ci doomi réew mi kenn mënu ko cee génne dama koy bàyyi mu nuyu waaye dama koy wax rek bàyyeekul may seen. kese. waaw sama en attendant en attendant añ bi. waaw en añ bi bàyyeekul. ak waa teraang noonu toog. waaw. <laughs> aywa waa li ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu systématique maa ngi lay nuyu jële siyaar bu baax a baax nuyu ñëpp ñi ñuy déglu à travers King FM King FM mhm. di nuyu Baye Cheikh bu baax a baax a baax a baax ah maa ngi nii di gis sama bopp. waaw ah. yaa ngi seetaan. laa ilaaha illallaah rajo baa ngi mel ni télé de. te àddunaa ngi lay seetaan kay damay ragal tey waa TFM am problème. am am lii laay ragal tey. man daal xam naa da ngay dugg rajo. Eh. di wax. waaw di dégg sa bopp waaye di wax di dégg sa bopp di gis sa bopp. Mm, di gis sa bopp. et ça se voit. Ah. te bàyyi ni muy gisee boppam ni noonu la ko àdduna yëpp di gisee. fi ñu te xam nga réseaux sociaux yi macha allah. macha allah euh, fenn foo ci laal rek ki nga moo nga fa. Mm-hmm. donc foofu yëpp ñu ngi fa suivre. Euh, waale ñu bàyyi la nga nuyoo ak ñi nga xam ñoo di soppee surtout rawatina suñu xaritu internet yi rawatina ñi ne ci marché yi rawatina képp koo xam ne rek waxtu wi yaa ngi déglu li nga xam ne moo di King FM. waaw maa ngi leen a gis naa jàppale bi surtout parce que mm-hmm. tamit diaspora bi hein, li ñuy daj ci wàll dafa bari mm-hmm. ils ont beaucoup fait pour ce que ma egg si hein, di gërëm Sénégal yëpp yëpp yëpp internet yeeg ñëpp maa ngi leen di ziar di leen wax euh bëss bi nak di le 27 bëss bu ma ñor la hein damay xëy rek di ci dox ba keroog ñu ciy jëm incha allah ba keroog ñu ciy jëm euh, lay ay le 27 yu baree bari dafa romb mais le 27 bi lan la waari namal ñi nga xam ni euh, dootuma wax sax dootuma wax fans yi mais ay xaritam parce que da nga dem ba maanaam fans yi nekk say xarit nekk say nitu bopp waaw le 27 bi nag dama bëgg mu nekk bés bu bés bu spécial spécialité bi ah du nekk leneen lu dul euh, ci lañ may xaar maanaam musique mhm. son mhm. ak lumière musique son. son lumière spectacle. baylo japp ci lolu waaw spectacle son et lumière dako daf ñu koo tàmmal xam nga bo tamé bo tamé qualité. kérok euh, bi ñuy def euh, ici. Euh, ñu ngi fateliku premier anniversaire am Grand Théâtre. Mhm mu nekkoon stress boo xamante ni euh, foo ko nattu weesu na ko <laughs> et je pense que tey euh, baax na fàtte xaju fi sax euh, ku fàtte ñu fàttali la <laughs> baax na tey Wally nga nettaliwaat ñu waxuma sax histoire album yi mm-hmm. histoire way yi mm-hmm. mais histoire anniversaire Wally naka la sa bisu juddu mm-hmm. doon événement dem ba bokk ci agenda culturel ndax mën nga ñu nettali histoire anniversaire Wally sek waaw sama premier anniversaire maa ngi koy def

bon dafa nekkoon nit boo xamante ni bi muy nekkee ci showbiz dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg. Mhm. day fexe ba dalay taataan. Mhm. léegi nag la gën a nooy. Mhm. parce que euh, euh, li mu doon wut ci man yëpp mais bi gis nako machallah donc day gëna noy mais bobu daf ma doon def soldat. bàyyi ma may lëcc lëcc xam nga diko daw diko ko wuti. affaire bi xawoon métti nag. tuuti ma def ko deux fois ak APS. gratuit benen bi ma yóbbu ko CICES def ko entrée 2000 entrée 2000 yaa ngi dégg. waaw ñun ci 2000 waa li neexul rek. ci yooyu jamono neex na kay. waaw 2000 kër <laughs> ni ñu ko defee entrée 2000. Mm-hmm. mu mu xaw a tane rek. Mm-hmm. ba ca topp ma def ko entre vingt mille 15 mille 20 mm-hmm. ku nekk naan ndax dina jar. waaw ma jël ko ci vingt 21 jours ñu dem Grand Théâtre ñu naan mën naa ne mënta ne. ca la Baye Cheikh ñëwee sol cuub ci ba ji tàkk nan mes mes juróom-ñaari mbubb te le 27 bi naa 15 mbubb muy solo ko simmeeku waaw moom na ci ñu ci ñu anniversaire Wally moom Wa parce que anniversaire bobu défi la ko defoon mhm. défi la ko defoon donc daraan xëy suba bu ngoon jot di ci wax mhm. alors biñu défé grand théâtre bi mu réussir benen ba ca top ñu def entrée 30000 mhm. benen ba ca top ñu def ñaari fan grand théâtre tegle ko deux jours ba beneen ba ci topp ñu def entre soixante quinze mille deux cent mille ak benn grand air ba tey jii may delluwaat ci esplanade ba di noonu di ko defee noonu donc anniversaire la boo xamante ni euh, sama bésu juddu la. Mhm. Sénégalais yi jël jël ko gën ma ko bëgg. Ah. xam nga anniversaire yëpp yi am yëpp anniversaire groupe bi la ñuy def. Mhm. man nag def ma anniversaire groupe bi sama anniversaire lay jël mhm. ah, di ko fete initier ko. ñu la demee ren euh, dégg nañ entrée yëpp mais ren. lan moy lan moy li nga xamni que mo bes ci entrée yi ak manam lan nga deugmal ci li nga xamni mom modi euh wax nga ko léegi spectacle son lumière mais ren lan nga nar ak ñi nga xam ne mooy ñoom rawatina entrée yi surtout. non parce que bo déggee deux mille soixante euh, quinze mille. mbir ka wàcc. deux ba soixante waali tamit ka garaaw li neexul ku garaaw nga jàkkaarloo nii ah. waaye li neexul rek ñeenti téeméer ba soixante-quinze mille <laughs> waaw waaw waaw loolu xam nga loolu su ma amee fu ci def ko mhm. eh, c'est grâce aux Sénégalais ñoom ñëw ma def li ma doon tey mhm. et puis su ma defu woon noonu mhm. maybe euh, egsi fii du gaaw egsi fii du gaaw du yomb parce que nag doolee jën ndox la waaye ci ñu li ñuy liggéey ci lañ mën a amee suñu dara ngir mën ci taxaw structuré wu

ndax neexoon na ndax am na lumière est-ce que il investi loolu moo mooy suma sac man parce que musique bu lay dundal danga koy dundal donc euh, li ma nar Mati ah Mati na xam nga jomme jommi mm-hmm. Mm-hmm. ragal naa dina am jommi bis jommi jommi mm-hmm. nga jékki-jékki gis ku yooxu wooy <laughs> xam nga ndëpp yooyu ñuy ndëpp noonu maamam yi xam nga moom ab lébu la ndëpp yooyu ñuy ndëpp noonu nga xam ni ku ci yoonam nekkul jóge Cees romb dégg tëggam rek daanu di nga ko gis di ko gis le 27 lu leer laa la wax de <laughs> mais exay nekk soo ko am rab bul romb grand théâtre le 27 ah, kon xanaa ma yóbbaale meew rek <laughs> borom rab yi bu ñu dem naa man su ma daanoo meew ma yëngati yëkkati euh, man ma dem jëli teraanga yi ah, déjà indi naa ay butéelu ndox mhm. xam nga gan bu ñëwee nag Adja. da nga koy euh, da nga koy teral. Mm-hmm. te Aquaterra euh, Mamadou Yatassay mi mm-hmm. ko mi ko moom. Mm-hmm. Euh, wayjur la ci waal yi dëgg la moom moo gën a yenu xew bi. moom waxuma le 27 bi de. moom yendu bi rek da koo yendu. waa léegi le 27 yata saay lu mu nar. <laughs> moom a jaaxal mais moom aussi. ba mu di yendu si king rek king rek mu indi camion ndox. mu nar fële lu mu nar le 27 grand théâtre. doy na waar mais xam nañ ne uh-huh. xale jigéen ñi dañuy waajal bu baax a baax. moo di Wally Seck. Mm-hmm. moo tax ñoom itam dañoo may ay perruque yu baax a baax. Mm-hmm. ñi nga xam ne ñoo di waa waa waa waa waa. CSB waaw CSB indi ñaari téléphone yoo xam ni que. waa li neexul mbir mi du ay dige man damaa bëgg nekk

boo ko jéemee doon it dafa métti mhm. moom dafa li ko dal dafa métti dafa juddu donn ba pare doon waali loolu challenge la yombul ci moom ba noppi nag dafa am loo xamante ne ci wàllu musique daf lay topp bu ko neexoon jël tànku baayam mhm. waaye fexe na ba ber yoonam mhm. def musique jeune looloo métti woon kaay ngan yu bëri foofu la ñuy daanoo danga jur doom taataan ko ci sa musique boo sañee wala boo euh, boo defulee ndànk rek li nga def rek nga lay def mais waali dafa bañ musique créer musique bu tu ci le sax bëgg ak euh, lan poussé à ce que gagne non d'accord m'a papa euh, ligue une fille, ouais man tamit dana créer musique bu parce que lolo lolo waral voilà pire imposé avec wax ni wali, euh, papa ya les vendredis papaaye eh, tas de eh, chose xam nga eh, yow nag Mathieu dañoo yàgg ànd. dañoo yàgg waaw <laughs> waaw gis <laughs> ci samay début. Ah, daan nañu wax ni Mathieu dafa sotal Wally Seck. Wally Seck rek lay def. waaw sama rakk la waaw moom nag moom suma suma suma suma suma sœur la suma loolu yàlla dogal xam nga ex. King FM dafa am loo xamante ni dafa am importance. Papa tu trois percussionnistes. Mhm. trois percussionnistes. mais quand créé trois percussionnistes de mhm. hmm? et rythme pendant 20 quelques années. Mhm. j'ai préféré. mbalax bi nekk même mbalax rapata rapata rapata ci coon mais aussi mu am ay cadence yu wàcc. loolu kay loolu kay tarangañ la. waaw <laughs> gitarangañ la rek ab gitarangañu raamdaan la rek. ah waaw. <laughs> mbalax mi ñu dem di de ko wàcc di nga musique mën na mën na am. Mm-hmm. musique mën na am euh, comment dirais mën na mën na am rythme. Mm-hmm. waaw te du gaaw. dëgg la ah, exactement. waaw mm-hmm. ah. am rythme te du gaaw. dañuy gaawale rapidité ak rythme. la mhm. rapidité ak rythme bokkuñu. Mhm. mën na musique mu am rythme mais du gaaw. Mhm. parce que quand c'est trop trop trop rapide. Euh, bu yàggee dafay dafay monotone. dafay monotone. waaw. dafa laaj léeg-léeg mu down. wàcce ko dafa laaj léeg ay cadence. laaj batterie bi changer pulsion. par rapport à ses pieds. yi c'est très très important. Mhm. donc man dama focus on ci loolu trop. Mhm. indi beneen façon musique Raamdaan. Mhm. te bi moo ko indee ça a marché. quand damay joué euh, penc mi gis sam papa ji def du jouer première partie mais am benn morceau bu mu dëpp.

dafa ñaan dafa ñaan ba ñaan bi sonal ko waaw mm-hmm. bi mu joué mm-hmm. mu def ben ñu def ben cadence break mm-hmm. morceau bi ah. mais pour pour te dire dama manqué jour boobu xam nga manqué <laughs> nga manqué dama non jumelé ci kaw <laughs> parce que parce que dafa ma dafa ma bête sa papa di la defal première partie musique bi nek benen musique mu melni ni dañuy jël ramdan yóbbu ko benen level ah. ma kontaan di jumelé ci kaw ah. comprendre nga après man ma lire ci bëtam ni il a compris. Mm-hmm. yow fi nga bëggoon yóbbu musique am. waaw mm-hmm. il a compris. Mm-hmm. ça a été dur hein. alors album bi di war a ñëw. ku ko jënd doo ko rëccu. Ah, parce que ah. soo ko dégloo di nga xam ni il a compris. waxtaan nañ ci sax euh, waxtaan nañ ci maak moom euh, am na soirée spéciale euh, Thione bu ñuy proposé samedi. Euh, samedi 21h. ci euh, télévision Futur Média parce que dafa bolé mhm. lu le ci 350 waykat. yi malien yi sénégalais yi guinéen mais xam nga la fi <laughs> xam nga merci beaucoup waaw eh, ex kenn yow man nag. Eh, ma ne fee may na fay. yéen King FM yow Baye Cheikh yéen ak Mati. wóyoo kii ful yéen bi ngeen ma defaral. vraiment maa bi ngeen ma defaral. parce que bu subaa la live bi bu subaa la vrai bi donc tey première ko nii kenn du yéen kenn du yéen yàlla eh, laaj. ok la yow laajuma la yow wax leen li ngeen waxtaan te xam ni lépp lépp mu leen ko waxtaan tey ma ne ma jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf

xam nga xam nga li neex mooy. tey Wally bu fi yendoo suba balaa yegg ci moom. mu ngi yeewu leen. dégg <laughs> neexul. et bul dem de Abba ah ñu ngi lay xaar et puis ñu ngi xaar tamit auditeurs yi il ah, ils peuvent réagir. Euh, ci euh, ci téléphone bi parce que tey sénégalais yëpp euh, ñun ni ñi amee ay questions di ko laaj Wally. ñoom aussi noonu la sénégalais yi. amee amee ay ay questions yoo xamante ni bëgg nañ ko ko poser. Mhm. surtout par rapport ak ascension bi nga xamee ni Exidex. am na ko Wally def na ko surtout ci scène internationale bi. Là, Il, a parlé de musique. Exactement. Euh, euh musique, euh, il faut que professionnel de pour nga exactement ko affaire ñun nous wi na neex rek ñu consommer dafa am ni da en et en aval mhm. ko euh, ci euh, mhm. parce que dafa en tant que musicien man mhm. nga chanteur te musicien parce que c'est vrai que la musique ci batteur de de de. c'était ça de exactement c'était ça <laughs> xaw ko man tara ngañ la xam mbaar njolleeg mbëfër nañ ma bàyyi foofu rek <laughs> donc donc donc tay suñu xel day dal bu ñu gisee tey par exemple Wally mu dem ba nga xamante ne gëstu na loolu mhm. gis exactement mom li mu soxla mhm. at lu musique papam soxla mhm. pour mu mën ko évoluer parce que musique da fay évoluer lolu c'est pas évident donc mom fexe na ba andi ko tay moderniser ko ba euh, tay ñu mën koo fecc sur le plan international mais dafa am ni leneen lu bees muy lan muy euh, déjà fecc ñëpp xam nañ ne baayam du fecc kat. waale loolu euh, mënoon nga ñëw rek taxaw def ni sa baay yi. ñoom ma penda taxaw jaay waaw. mais danga ñëw yow ne non d'accord xam naa ne ñii mënuñu fecc. Mhm. mais danga nga fecc ci kaw scène bi. carrément xaaroo say fecckat bu la neexoon jëlee danseur mais da nga ne non damay ñëw ndonte xamna naa ne sax euh lolu ma ko ci ñoom. fecc fecc jamono fecc la waaw. mais damay andi lu bees. <laughs> waaw parce que. <laughs> ah je me rappelle bien mës na ma yow yaangi am ñu lay feccal. Mhm. non pourquoi ngay fecc. <laughs> mais est-ce que conflit de génération. mané sama xel. yow bul fecc mais man damay fecc jamono jën nekk la cay xew de scène waaw bec de scène parce que da ngay xool boo xoolee ci diggante euh, ñi fi takk ñëpp ci mm-hmm. génération mm-hmm. lu ko jëmee ci côté occidentaux yi ñi nga xamante ni ñu ngi ay Chris Brown ak ñëpp ñoom ñëpp c'est des grands danseurs mm-hmm. fecckat la ñu. Mm-hmm. yow moom doomu Michael Jackson. chorégraphie ñoo ci sut. te njabootu mm-hmm. Michael bi nga bokk man sax aw ma chance mm-hmm. mën chorégraphie. aw ma chance mën fecc trop. waaye am na ay feem. am nga say feem. waa dinaa fexe ba bokk ci. ay clé waaw bokk ci xam nga li mëri lëndoo bi. xam nga boo. soob boo munul <laughs> xale yi yooxu. <laughs> soo munul xeeñ soo munul xeeñ neex. <laughs> soo munul xeeñ neex. da ngay ànd ak borom parfum dëgg ko xeeñ parfum. dëgg la ndax bu demee buy dem yóbbaale la. c'est vrai bu la xeeñ. waaw maa la noonu la demee. exactement mm. mais euh, Pape tamit. ñu mm. gisaat beneen boo xamante ne beneen facette la. Mm-hmm. Euh, tey la ko nar a laaj ba waa di daw te daa war a kii la sama sama rakk la kii maa ko dama am droit ko yar dama am droit ci moom. boo xamante ni ñëpp a koy xëccoo. waaye tey moom xam na nekk sama rakk may ma jàmm. déedéet sotti nar a laaj <laughs> sotti am borom rajo yi foo xam na li may wax xam na li bu yàgg xam na li may wax. xanaa fépp la dëkkoon. xam na xam na li may wax. maa ko yaa waaw waali seedeel. waaw waaw. HLM Grand Yoff bu njëkk. waaw sama kër maam. dëgg la. waaw bu ñu ma toog guddi. Eh? mu ñëw fekk ma taxaw mi ngi solo sort. loolu nee naa la saa ma xële waali. ma nangu 250 mu jëli caakiri sow ci grand ji loolu waxoo ko woon rek. <laughs> <laughs> faut te dire que jom dafa mës nek ci mom dafa sop Wally dégg déjà artiste da ngay sop mhm. mais Wally tamit ci sop googu. Mhm. ñu gis ne toujours tamit and nga ci benn touche moy xam nga né d'accord euh, damay fecc waye tamit dina andi côté vestimentaire. Mhm. c'est-à-dire que bu la neexoon tay euh, waaw surtout yéré yi quoi andi sañse. Wally sañse dafa cher. man de léegi tubaab ju jënd. Wally ko yóbbu ci tailleur bi mu gën a wàññi. maa ngi yow déggoo ba ma doon dem di jënd naan waa ji mu ne ma ah egg si fi doo dem waali li ñu ñëpp waaw mais <laughs> ça fait plaisir parce que c'est bien beau ñu ne lii diw moo ko fi indi mhm. ah, nit nag mën na indi juum mhm. Mhm. waaw mën na indi juum ndax wa sañ sañsakat bi léeg-léeg mooy mooy juum daanu waaw loolu dama koy wax euh, dama koy yóbbante ci maam su maam maam Sodo so mhm. mhm. da koy faral di wax mhm. ndaanaan dafa daaj léeg-léeg nga daanu waaw ndaanaan daa di daa war di daanu dafa war génn ñu ne ah tey juum na dëgg la de waaw mooy cat bi ah. mooy mooy cat bi léegi nag euh, soo gisee euh, ñu étiqueté moon peew peew peew ba dem ñëpp di sol peew wàññi rek bu njëkk góor ñi dañ daan sol tubéy bu noir wala mm. jean brut bu jean bu mm. bleu te benn rek lañ ci am waaw mm-hmm. wala bleu ciel. Mhm. du ñu weesu couleur yooyu. dëgg mhm. man nag. ay couleur gaa ñemewuñ maa ñëw indi couleur orange indi flu vert. wa wane ni solo bi soxlawul euh, ci benn blanc noir benn code quoi blanc bleu parce que euh, euh, li ngay sol ni nga ko solee yow miy dox yow ci ni ngay doxee la. Mhm. waaw nit bu la yebee ci sa doxin la. dëgg la solo la gisee la lay. ndax Baye Fall yi moom benn njaxas la am. waaw. waaye waaye kenn mosu koo yëpp déedéet saa génnee ñu ne Baye Fall ci doxin bi la waaw ci doxin bi la donc euh, créer dara indi beneen aspect c'est très très important ci artiste mm-hmm. Mm-hmm. parce que tamit euh, euh, bëgg naa bëgg naa ëllëg ñeneen génération bi ñëw mm-hmm. topp ci man ah, xamoon ni waalikat indi woon na leneen ñoom ñu indi leneen mhm. parce que boo fi boo ñëwee fekk fi dara da ngay indi leneen mhm. Mhm. ngir ëllëg ñeneen ñi ñëw sa ginnaaw mën a indi leneen c'est très très mën naa fexe nga ba xale ku ci am ñaari yére yére it <laughs> moom dina non dina sañse waaw léegi xale yi moom bi mu ñëwee waaw maanaam boo xoolee ci ñu bokk ci waal yi da nga naan kii fa la bokk. parce que da nga leen du xool dañuy sañse. Uh-huh. donte tubéy bi sew na dijj na mais dañuy def maanaam li nga xam ne moom. dañuy dañuy def sañse. def juróom-ñaari ba na ko fi. <laughs> même bu sawet baax na. Ah, mais xanaa xanaa xanaa xam am ah. na fooy toll. Mm-hmm. par exemple soo demee en Europe. Mm-hmm. Euh, balaa liy njëkk a nuyoo liy njëkk a wax mooy li nga sol. dëgg la. Mm-hmm. modestie à part boo demee Europe. boo waroon daje tey euh, un maître Gims. wala un da PC Bala ngay wax li nga sol moy njëkk wax. Mm-hmm. waaw mm-hmm. da nga wara fort ba paré. non bala en fait. il faut que ñom dañ koy dund seen habitude la. Mm-hmm. dund marque. xool nak sol na marque li mu sol lan la. balaa ngaa wax yow. li nga sol moy njëkk wax. Ah, c'est très très important. donc habillement dafa bax. Moy eau. mooy aw artiste ki téere la. waaye li ngay sol moo lay ëw. mooy gi. kaw c'est très très important. mooy kaw kon xanaa kon xanaa li may def aayeetu leen ma ko. kenn aayeetu may ëwee baax na. waaw baax na waaw.

góor la am ci yo xamni ne pour jigen la wa Black ci aussi xam nga ni ñew na ak seeni i perruque ji li CSB mi nga xamni ne moom euh, suñu xarit la waaye xaritu walé la waale maanaam c'est mon frère da ngay na yag ji li yàgg c'est mon frère dañu yag lol mm-hmm. lol lol lol ci ci Colobane gu ñëk ji ah, ah. <laughs> way en tout cas xawma li xéñ ci studio bi neex na de lu mu doon ay mooy couleur mi ah. ak ba nga couleur mi nga fi def couleur mi tay jek way ndox mi ngay nan ni tay jek ndox mi ngay nan ni ah ana yatasaay. yatasaay. moom moo di yatasaay. aqua aquatera. kooku bàyyi waal <laughs> et puis et puis et puis page Facebook euh, mm-hmm. booking FM on te mm-hmm. donne la possibilité de nous tour mm-hmm. vidéo vidéo euh, ñu yónnee la mhm. nga am ko yow mhm. en exclusivité c'est possible mhm. euh, tay ci yendu bi ak ci King FM. wa. kon nak nonu la noonu la ñu koy defee léegi léegi ñu bàyyi ko mu noppal tout le 27 lañu jëm ak li nga xam modi anniversaire Wally Seck tailleur yi dégg naani commencé nañoo xat way aéroport yi aussi gars yaa ngi point de vente yi itam dinañ leen ko wax bu ca kanamee ak numéro téléphone yi nga xam ni ci ngeen mëna amé ay place yu am solo le 27 avril ci Esplanade bu Grand Théâtre waaye kenn du Cheikh ndigal Cheikh ndigal maam Cheikh Falay maamam borom ndigal bay fal fal di wëcc ndigal doxe ndigal may doomi di laala di sàpp di laala may doomi di laala fal dëggantaan taalibe di laala fal boo bëgg naa leen ku sant Mbàkke Serigne de musim, aussi may na ñaari bàgg or ma ko waaw waaw langub jéeg ji dal xamal ni gàtt gàtt wali ah <laughs> tey ñaari or la ñu maye te xam nga ni bu ñu ko waxee bu ñu ko waxul yëpp jéeg ji moom la bëgg or ci boppam la nit bëgg ci xolam man man ma man ma gën or man waaw gis na la ngay tegle man mo yenn saa yi ma ne waali ñaata garaam man dañ <laughs> kon la dem waa couleur mi aussi ñoom Maxtaar ñoo nga West Foire ñoom itam indi li nga xam ne moo di couleur mi bul fàtte ni dañuy def parfumerie di def li nga xam ne moo di make-up cheveux naturels représente li nga xam ne moo di parfum bi nga xam ne moom moo di couleur mi fii ci diwaanu Sénégal showroom mi mu ngi fii ci diwaanu Ouest Foire dina ñëw ci ñoom ca kanam tuuti Aquaterra xam nga ne mooy ndox mi nga xam ne moom la mat yi di naan moom la waal yi naan Aquaterra j'espère bien que jour ba moom ku ko gàddu sax de boo ñuy dugg waaw ñoom nag sama diggante ak ñoom dafa yaatu mhm. ku ne xam na ni Mamadou Yatassay mhm. bàyyi wàll yi la dafa dem sax ba euh, dafa bokk ci staff bi. Mhm. lool la yàlla dogal. ci la bokk kon waaw suma suma papa la suma ah. xarit la. Mhm. bàyyi taalibu ya. Mhm. suma waay la vraiment. jeex na ginnaaw dañuy wax ku bokk ci gétt gi naan ci meew mi yatta saay kon yaa nga ca biir.

oui King FM. oui moom lañu koy wax. dama bëgg nekk en direct dama bëgg a jot Wally Seck. maa ngi lay déglu nanga def. maa ngi fi. noo tuddu ma la Mounas di baax. Mounas na nga def maa ngi lay siyaare. Wally. oui. Wally bëgg naa la torop. maa la raw Mounas. ñoo ngi pare le benn incha allah. incha xam nga xam nga sama bëgg nu mu def sa bëgg. sa bëgg nu mu def sama bëgg. da koo jàpp poñe ko puni ko ci coin. waaye li neexul. xoolal ruq xoolal ruq bi nga jàkkaarloo. ah Waly bëgg naa la. mi ngi mën a munaas di baax maa ngi lay ziar ma teg munaas maa ngi maa ngi lay bëggee bu baax a baax. kontaan kontaan naa kontaan man tamit kontaan naa ñu ngi waaj le 27 bu nga fekkee ko. sama benn rakk aussi da laa bëgg Khadija. neen Khadija maa ngi koy bëggee bu baax a baax. mooy ni xaaral ma jox la ko jox ma Khadija. allo tonton Waly. waaw Khadija na nga def. maa ngi fi. maa ngi lay bëggee. dama laa bëgg sama xol. maa la dàq bëgg. da baax tonton Waly. maa la dàq bëgg bëgg naa la ni ni xaar bëggee ngooñ. sa anniversaire bi yaa ngi ko yàgg feet ay ati ati at yàlla may la gudd fan wér gu yaram bàyyi laa ak jaaga ba. amiin yaa rabbi amiin amiin. <laughs> dem na maa ngi bég ci moom bu baax a baax keneen bu ñëwee ci 88 128 99 90 yendu ak waali la ñu wax gëm naa ni tey dara du fi doy ndax ñoom ñoo gën a soxla ñi ñu nii ne ko allo salaam wa rahmatullah nga def maa ngi lay siyaare yal nañu yàlla waaw góor nga fekkee lépp amiin ñu fekkee ko waali man de tafantu laa noo tudd man mam Fatou mam Fatou na nga def maa ngi si jàmm bu baax alhamdulilah. mbaa kenn tawatul. fan ngay wootee Mame Fatou. Suprime extension. Suprime extension. waaw naka waa Suprime. ñu ngi si ñuy mbaa ñëpp a ngi waaj. waa ñëpp a ngi waaj. ah na waaj de bu leen ci kenn mën de. waaw waaw incha <laughs> allah seen bés la bu leen ci kenn mën. waaw waaw ndax deux depuis 2009 ba tey rek lay topp. waaw góor waaw góor waaw góor. kontaan naa xam naa ji dinañu gisee ci le 27 incha allah. Inshallah. vous allez porte bien. waaye oui. Oui. man bien. je billet. ah Waouh. am nga ko Tu ni Wow. ah <laughs> am nga full? ni, Je ni. King FM. Je mhm. ah, ah, non attends attends uh-huh. sa numéro. 77. 77. 314. 314 numéro 314. 52. 47. 47. waaw du la may benn billet nag dégg nga xam nu may def. <laughs> dama lay may billet yàgg ki ngay àndal. ah loolu. da nga am fulla waay waa li xanaa neex na. jeex na amal jàmm. <laughs> dina leen wax bu ci kanamee sax daka la ñuy def ba am ci euh, ticket yooyu noonu voilà. donc mën nañu woote ah. ci 88 628 99 90. waaye dinañ waxtaanee it ah ñoo ko moom ñun liñ ci am rek mooy ànd ak ñoom rek. Mm-hmm. ayca bismillah. ne allo oui. yokkal baat bi chéri waale ngi lay dégg. Euh, allo. Mm-hmm. waaw. maa ngi lay siyaare. maa sa dàq bëgg de. ah. <laughs> noo tudd. soxna Waly maa ngi lay bëggee. soxna Waalo. Ah, soxna Waalo waaye sa tur bi maa gën a di macha allah <laughs> waaye maa ngi lay bëggee waaye. mbaa kenn tawatul. mais xanaa dinaa la gis la 27. incha allah jeex na kon à le 27. waaw góor maam jaara ba ba ngeen ba ba ngeen dëggam. Hmm. yéen de bëgg waali rek sama ndam la loolu. soxna jaar ak soxna waal. dëgg loolu. li li lii de lii de am am naa sama benn xarit bu ñuy wax Kareka mu Serigne Saliou. Mhm. Kareka. xam naa ni ma nga fa ca Italie xol ba seet na ko yi. xol ba féex na. <laughs> ak billaay Abdou Samb Samb yëri. ndax di taalibe Khalifa Mbergane aussi noonu la lay sargale nee mu ngi lay ziar bu wér wér euh, mu ngi ca marché HLM ne ko allo. allo. allo oui.

É. Eh. <laughs> King FM. non waaw yaa baaxoon. yow yow yow. ndeysaan.

ah dana mën jël ñu bari mën nañ wax ni bi pas ñi nekk ci biir ëpp nekk ci biti. <laughs> espace bien amoon esplanade bi yëpp jël nañ <laughs> li nekk ci biti jël espace bien. yëpp. bi yoon suma papa kay si bousso daf ma defal faveur. <laughs> ma exploit. Euh, espace bien yëpp jël. ci biti yëpp. déggoo ma ñëw dañ lay guidé wax la fi ngay garé xol sa biir ne ngay jaar. tout est très bien organisé. nit ñi ñëw ban heure. man kay bu ma sañoon euh, kuy départ sa kër na nga départ 18 heures. 18 heures. pour nga pour nga mën a toog ca kanam. toog ca kanam. Mhm. waaw euh, ticket yi. ñu fàttali rek ñi nga xam ne dañu bëgg a jënd waxtu wi nii fan lañ ko mën a amee. ticket yi ñu ngi mi ngi jaay euh, ci Njagoro. Mhm. am na sama kër papa. Mhm. am na aussi penc mi. am na Sen TV. am na comment dirais-je. ci Snabou ñaa xarañ loo ah Snabou ñaa xarañ loo waaw ñaa sunu xarit dafa ñu fekk non ñaa ñaa temps yi waaw ñaa xarañ moom dafa da bi moom sama cadeau anniversaire waaw daf ma jëlal oto waaw carrément def ci essence bu doy xam nga lu muy def ñaa damaa a ticket ñaata ticket mu dem livrer la ko ci gratuit gratuitement loolu moom moo ma ko defal cadeau anniversaire donc mooy ma koy ñaanal jàmm bu baax donc ñi nga xam ne bëgg nañu ticket donc foofu la ko mën a amee waale ci li nga xam ne moom moo di générosité bi wax nañ ko sànq mais Wally euh, sa diggante ak say musiciens gis nañ complicité bi nga xamni mom mo ci am. lan moy lan moy secret bi. ma famille d'abord parce que musicien yow mi nek ak mom chaque jour. ah da ngeen dem ba da ngeen di am ay liens familial mhm. mhm. wa té ñi ci nek ñëpp je pense que man may chef d'orchestre man maay euh, euh, leader groupe. leader bi waye ma ci gëna a tuuti. Mhm. man Benjamin rek laa ci mag ak Seydou. Mhm. <laughs> ñaar ñooñu. waaw ak ah suma choriste bi Seyba. Mhm. kii bas mais ñees ñëpp ñoo ma mag. ba ci techniciens yi ñoo ma mag. Mhm. kon yàlla bu dogalee nga nga jiite ñooñu. ñu jox la cër bi nga am. ba pare ngeen dem ba am ay liens yu yu yu yu fort. donc c'est une famille. mu sama nag sama musicien léegi famille la. famille la ñoo ma ko gën a bëgg. su ma feebaree dof nañu. ndeysaan su ma amee lu metti am nañ problème. Mhm. não ñoom ñoo não gën a bëgg. Mhm. Mhm. ngay ànd ak ñoom di tukki pendant léegi mu def 2010 euh, ba léegi. ça fait ça fait ça fait 9 ans. 9 ans presque 10 ans presque 10 ans. kenn musu cee daw. kenn musu cee daw. saa yoo xam ne ñoom ñoo ànd ak musuma ànd ak musicien mu daw. bi ma way ba kenn daw. sama papa ñaata musicien àndal ñu daw. ndaw dëgg la. <laughs> ndax boobu boobu réew mi taso réew mi tojoon. te réew mi léegi li gën a toj. Hmm? mais li ko waral moom mooy xëj na familiarité bi ngay wax. seen diggante loolu parce que dama dama dama man maa leen njëkk a ñooxu. Mhm. bala ñu may ñooxu. Hmm. en plus li gën a graaw j'étais un musicien ci biir Ramdaan. waaw. ñu hmm. def première partie comme ñoom. Mhm. Mhm. donc c'était pas évident ñu jox ma cër bi ma dëgg la mais bi ma ñëwee. ñu gën ma ko bëgg a jox ma cër bi mën naa ne wax waaraam daan mhm. musiciens yi ci boobam balaa Thione Seck di ma jox lenge ñoom ñoo ma jox lenge mais dañuy wax ni dañuy ni cër nit a koy jox boppam ba gis nañ bërki dem aussi nga def geste bu nice mooy ndey si bi nga xam ni bërki dem rek la mooy xale bi nga xam ni moo fecc fecc mu neex mi ex temps yi ma koy jàng te moo kologu ma ko ba tey xale bi ak socc bi kaay <laughs> kooku nee naa la sump sum bu nga koy wër. maa ngi jàng fecc mi ba tey mënu ma ko. Liss <laughs> dafa am maanaam eh, eh, eh, am caaj waaw. waaw donc nag. Euh, euh, di nag <laughs> yëf yaa ngi. waaw yëf yaa ngi waa oh. Terra ñoo indi li nga xam ne moom moo di. Euh, gâteau boobu lee. indil ko ki nga xam ne moom moo di Wally Ballago Seck par anticipation ñu souhaité ko un joyeux anniversaire. ah Thioune. waaw di xam nga ni King FM ah, du ay foo. ah King FM du ay foo. déedéet déedéet. waaye Mati xam nga ni Waly du foo. déedéet. lii moom xam naa ne mi ngi fi doog am. waaw waaw léegi dama lay laaj. na nangul ba pare. lii ah. Ah, lenn rek laa ci. guleet waaw xam nga lu ma bëgg. waaw nga bàkkal ma leen. am noo def ak ñoom ñoom ña toog ca biir société bay liggéey yëg seen bopp. ci lii xam nga moom chaque fois dama koy way naan ko. Yatassay. Mm. Mamadou Yatassay. Eh. aquaterre Mamadou yatta sayi moom dama koy faral di ko woy ci morceau bi wax yàlla yàlla baax na mhm. parce que euh, dafa am lu fu ma bëgg ma dem mm. te fi ma bëgg dem gannaaw public bi mm. waaw yàlla rek ma fa mën a yóbbu mhm. moo tax saa may woy yàlla baax na dama ko ci dugal mhm. parce que daf ma yéene lool ndeysaan daf ma yéene lool lool ku la yéene la moo tax Maty souvent duñ koy faral di wax <laughs> artistes yu mel nii euh, dafay baax jamono ñu jàkkaarloo ñoom askan bi jàkkaarloog ñoom euh, ñu mën a waxtaane lu mel nii euh, sànq defe naa ne Baye Cheikh wax na ko mais tamit wax Wally par rapport ak sa anniversaire bi Euh, dañuy gis souvent tamit euh, bu ñu demee ba dëgmal ko euh, à quelques jours ticket yi day jeex. Mhm. quasiment mhm. actuellement. mën nañu à quelques jours à quelques mois ticket du am. <laughs> ticket du am. <laughs> maa miin anniversaire am damaa ah. teel a bindu pour auditeur du King FM. <laughs> teel a bindu. teel a bindu bindu naa keroog. dañoo teel a bindu. waaw teel a bindu dañoo bëgg a toog ca kanam. mes amis love mais gâteau bi gâteau bi gâteau ah, le 27 le le le 27 par anticipation dafa mais mais ah Cheikh man man lima vous cadeau. Mhm. Mhm. cadeau bi ma jëk jot. Mhm. ah Sophie comme Moko. Sophie sec. sa indi

ba léegi ñu ngi ñëw. cadeau yaa ngi ñëw te anniversaire bi jotagul. Mm-hmm. billaahi ah ah ah sama sama sama benn sœur bu ñuy wax Astou Mbaye. Mm-hmm. ku li ma ca Singnaat ca Suisse. wallaay El Fenki. xam nga kañ la tàmbale moom ci cadeau. noo ko tuddee El Fenki añ. Mm-hmm. El Fenki barki sa maletu añ la yaayam tudd. dëgg la pale baa ngi fii. Wakaam euh, Mamel nii ci boor boobu la tabaxal ndeyam ja pale. billaay mi ngi mi ngi may mi ngi may bëgg a rey. ça fait ça fait deux semaines chaque jour mu yónnee cadeau. Astou tabax c'est loolu. kooku dafa wér waaw astu wérul sax wérul sax xew mi rëy na mati te ñoo wecci mas kooki dafa ñëw sama sama sama président mm. moo koy wax PDG mm-hmm. moom moom démb dégg naa sax ne bu fekkee dañ laa yónni ci man mm-hmm. pour nga defal ma bagage. Hmm. Hmm. wax ma ko. tur bi nan la. dëggal loolu PDG. PDG tur bi PDG tur PDG ah, <laughs> ah, ba pare. Youssou noppi mii mën na seede. Euh, nii man ci staffu Wally laa eh, eh. Ah, pour en cas de ñàkk jot parce que. te période bi amoo jot tey boo yendoo fii da ngay dem répétition waaw lii ma jàmm la pour yóbbante yi waaw yóbbante yi man mun naa koy récupérer Baye Cheikh xam nga ku ñu wax ngenaar hop hop hop waa jàngoogu <laughs> kooku moom laa teg sànq eh, Mati bàyyi ma pour nga teg ko maa la ko jox <laughs> maa la ni tegal waa léegi xanaa fii seef amatu fi baat nag léegi <laughs> lii la ñu bàkk ngenaar ba pare xam nga lu ma bëgg a ah. eh. fii ba yendu bii jeex. waaw na way boobu rek di jàll na ngenaar di ndax ngenaar a ngi. <laughs> Eh. man mii maa kaa fecc. li waa ndari di wax man mii maa kaa fecc. <laughs> on a beaucoup de cadeaux pour auditeurs Nous ñu 88 628 99 90. c'est vrai que sans que tey yéen a <laughs> euh, italiens sont naan yéen a ngi ñuy <laughs> bëgg profiter ci auditeurs yi bëgg de ci Wali. <laughs> internautes yi bëgg encore ni Domi Sénégal Allô. allo. allo allo. Kokan la. Wa cher. salam. man la ummi waale laa soxla woon. waale ngi lay dégg. allo waali. allo oui. ay waali bëgg naa la. maa la dàq bëgg. waaye depuis 2009 ba léegi dama laa bëgg. waaye maa ngi lay ziare waaye maa la maa dàq bëgg. waali maa ngi préparé le 27 amaguma billet. incha allah amoo billet yow. yow nag kaay waali may ma kii dañu koy feelu ndax. waaw xew mi neex na lool waaye bu ñu la toppee kaay. dëgg la da ngaa xiir baax nga tabe nga yaatu lool waaye ne dafa am nag nu mu nu mu nu mu laloo léegi nag xëj na mën nañoo may benn ba ñaari ticket mais après dina leen wax yéen nag noo leen di def kenn du may kenn du la may lépp nga jël lépp wala fa ko wax <laughs> léegi nag soxna si léegi yow ku soxor nga sa kanam eh soxoruma eh soxoruma yow da ah. suñu xew kaay léegi man comme may naa ñaar waaw ok amul problème léegi Baye Cheikh waaw mayel ñaar euh, yow noo tudd man la Oumy <laughs> ummi waale lu garaaw la lay wax ummi waale. da nga bëgg billet. lu graw la koy wax pour le 27. waaw ummi da ngaa yéex a jóg. <laughs> naka la anniversaire Wally di nekkee le 27 yow nga bayyi ba le 20 tay le 20 ñaata ci fin yi nga bayyi ba le 23 nga dogo woté pour am billet. 4 <laughs> jours 4 jours rek des ci. doon le 26 sax damay ñaan pour dem. da ngay ñaan pour dem. président ah, wa d'accord je t'offre benn entrée. Ah.

xam nga lu tax ñu lay may. parce que déjà Wally ak Apes boobu la dooree. ak ñoom Alex ak ñoom seen j'espère mu ngi ñëw ci programme yi. ba tey waaw mi ngi ciy jàpp mi ngi ciy jàpp bu baax a baax. ba léegi nii donc ummi may nañ ko ko ñu ngi ko koy béggee bu baax a baax di ko sargal. Mhm. Euh, Pape Cheikh jëlal keneen ne ko allo. ba pare ren dama lay dog foofu balaa may jël téléphone bi. particularité anniversaire bi. mooy Wally dina ci dina ci wax. Mhm. Euh, euh, samedi la Wally juddu waaw. pour la première fois anniversaire tombé avec samedi. je suis le jugement. <laughs> jugement aussi. <laughs> mais particularité bu parce que chance bi may chance mu tombé le samedi. Mm. Et je suis né le 27 avril 1985, un mhm. samedi. samedi. Mhm. D'accord, ah. bah, c'est-à-dire que bon donc ça veut dire le 27. avril. ne Je King FM King FM King FM. <laughs>

donc anniversaire bi ren euh, dafa dafa particulier euh, parce que samedi bi Wally euh, mhm. euh exceptionnellement et pour la première fois 27 avril bi mhm. tombé à samedi mhm. di bis bo tennis. c'est-à-dire dafa dem ba ñi 27 avril dañuy xaar wali teug pour ñu ñëw son anniversaire légui nak nga beral loxo sénégalais yi voyez, anniversaire y est, ci guenné euh, doo ko yemale Sénégal di nga dem itam ci yeneen deuk yo xamanteni bu ci nek di nga mosal euh, fans yi nga xamee ño nek ci deuk yoyu hmm. euh, jox len sen wal ci gatu bi ya beaucoup de dates yo xamee japp jàpp nga ko après le 27 hmm. pour deuk bu ne nga dem def fa dara wàll yi incha lu ci balaa ñuy jël téléphone bi lu ci mel ni le 15 juin ma ngi dem Londres le 15 hmm. juin waaw ma ngi dem Londres ngay ku bax waaw dem yóbbaale ma <laughs> mais bàyyi ren comme directeur nga da ngay bàyyi ma def xaay wax yi bëgg neex àndal ñàkk ànd ak ah. wàll benn doomu

15 euh, mars bi ma doon def. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw mars la woon. Mm-hmm. le 8 mars waaw bi ma doon def waaw bi ma doon def Paris. Paris def na léegi booy bi ñu nekk bi ñu defee Birane Para. waaw yàgg na waaw donc euh, dinañu dinañu dinañu jàkkaarloo waat. delloo waat buum ca boy boy. incha allah le 26 octobre ca Paris. même léegi nii doguma la balaa ngay àggali ak date yi ñu ngi jot yóbbante euh, Youssou Ndour. jóge ci Mara ci ay encouragement yoo xamante ni wallaahi barki borom Touba léegi nii. bima guéné mhm. euh, di encourager sen dom xam nga mhm. li wali wax keroog bima ko invité ci télé bi mu né jotna mhm. pour Thione Youssou Omar Baba Mal, wo xalé yi won len yone bi c'est-à-dire mom euh, euh, comprendre na lolu mu ngi jappalé ay rakam waye mu ngi dox ci mouvement euh, dafa am ay kilifa yo xamé ni bo toppul ci sen ginnaw sa sa sa mën nga dem sax mais ni nga ko bëggé du demee non ku melni ni sec ku mel ni Youssou Ndour mm-hmm. ku mel ni Omar pen ku mel ni Baaba Maal mm-hmm. ñooñu ñëpp di sa ay kilifa mm-hmm. bu yàggul rek bi ngay euh, bi ngay tëgg Suisse euh, Ismaël Lo nga jël def ko pare te loolu itam dañu ko seetlu depuis nga tàmbali di ne ci sa carrière di def say spectacle et tout ça loo ciy def rek il faut nga yóbbaale benn kilifa ne moom laa bëgg a njukkale waaw c'est tout à fait normal parce que bu bu doon bu doon euh, suma papa moo ma jur dëgg la waaye yàlla dafa def ñu bëri dañ ma bàyyoo dañ ma mhm. dañ ma doomoo waaw mhm. xam nga jël ma def ma comme seen doom mhm. ah di ma supporter ñoo ma gën a bëgg sax Papa Thione waaw donc sooy def yenn yi balaa ngay def dara da nga ko war a tàmbale ci ñoom parce que Thione moom soo tuddee keneen dina kontaan da ciy gis boppam te ñoom ñoo bokk benn génération ah lépp lu ci waay ji def rek ah, na nekk lu nice lu easy parce que ñoom ñoo bokk seen ndey ak baay bokk seen génération à tout moment te dañuy dajee dañuy waxtaan ah, donc euh, Papa Ismaël Lô nag ku ma jàppale la ci Suisse bi. Mhm. boo seetloo morceau ba fa toj sax moom moo ko way. waaw moo moo ko way muy taajaboon. waaw ah, moom tubaab bi dañu xam taajaboon. waaw ay eh, balaa nga xam seen gëdd nga dem. waaw ah, génn ah. génn bi. balaa ngay xam kuy Baaba Maal. Mhm. nga génn. Mhm. balaa ngay xam kuy Ismaël Lô Omar Pène. ba ci Cheikh Ndigal Lo mhm. nga mhm. mhm. So rek ngay euh, euh, image la dañu euh, grand théâtre mu nekkone une belle très belle affiche bo il y avait sur scène y avait ah, y avait donc y avait y avait y y avait ñu taxaw taxaw oui soirée soirée exactement oh. ñom nous ñu retrouvé ci ko seen L'image lool lool image que euh, ne bu koy euh, euh, pour que nit rek mm. wa ñu encore une fois c'est parce que tout simplement ñaan dafa jig Dom. Mm-hmm. té ñam du du Nous ci wajur Nous mm-hmm. ñepp lañu mm-hmm. donc mu Youssou Ndour domam la Omar Pen domam la ñom ñëpp ay bayam lañu té mom dafa nous sen ñaan ndax ñom xam nañ ne fum toll que Nous avons Wali loolu waxatuñu ko. ma jàppale waaw man rek lañu faa. ndeysaan fayda. <laughs>

nit ñi ak invité lu Wally waxtaanal ak Wally Jamila euh, Jamila Kane taalibe Serigne Fallou mu ngi nekk Paris moom tamit euh, ñu ngi koy nuyu ak euh, kullu koo xam ni rek soppee nga tey préparé le 27 avril bi incha allah. le 27 moom li may faral di wax rek jàakaar naa ni ñëpp a koy préparé waxtu wi ñoom Issa Ballago Issa nee na ma neen Wally maa ngi uh-huh. koy nuyu xam naa ni Issa Wally nee na dégg na nuyoo bi. ndeysaan kon boo Issa maa ngi lay nuyu waaye itam maa ngi nuyu Leila depuis Paris. surtout xam naa ni bopp bi yàqu na ndax bëgg naa fekk anniversaire <laughs> kon nak dañuy bayyi ci Mbax ndjay mu ñew ak ñun ci li nga xamni mom modi moo yi dañuy delu ci wat ak yeen leg leg yi bu ko defé nak ma ñew ak yeen ci lo yi nga xamni mom lañ leen indi tay ji nak leen ko jox choro Serigne mbacke ndjay time noonu la ñu koy defee donte tey xam nga ni waali moo fi ne moo tax kër gaa ngi mel ni mbàccum gerte moo abaa yow <laughs> fooy liggéey yow àjjuma lañ la woo. <laughs> nee na groupe Futur Media. dama ne yaa ngi wax ñëpp a ngi lay dégg. waaw fooy liggéey. man groupe Futur Media. déedéet dër na réew na yow lë. <laughs> moo tax way bi ko way ne ko jurgóor ma ne ko. yow xamoo kii sax bu la ah, kenn jur góor am na lu Bijou Ndiaye doon présenté keroog ci télé bi yooyu nga xam ne du feeñ te day reye waaw xaw ma nucléaire lu tudd xaw ma bu ma amoon loxo ci mi nucléaire <laughs> nucléaire naa ko keroog bi mu dugg see <laughs> dér na réew na <laughs> te day yóbbu ay wax léegi dama muy liggéey ku yàbbu rek defaraat toogaay yow da abaa day yóbbu ay wax waaw groupe fa euh, ma waxtaan ak kii waay tamit groupe Futurs Médias doomu doomu ndeyu kii nu mu tudd Gaza City sama xarit bi Euh, Olivier Ole Ngander mais c'est que yow Pape boole ay numéro ay golo ay yaay nee na ma xaa yaa bi ma ne ko mënoo ko prononcer mais Abba bu tey weesoo dama koy invité jeudi aussi ah xam nga suba eh. xam nga suba Wally day dem RFM li ma naqari mooy billet yi jeex na du <laughs> ñu may kenn suba ay RFM rajo yu yàgg yooyu en tout cas ancien rajo xale daal en daal man li ma xam ba xam ko mooy yéen a def première partie bi sant naa leen gërëm naa leen man bu subaa ma live <laughs> ah, dangaa ñëw bokk ak ñun <laughs> et puis li neex ci ci ci ci sa yendu mati gis naa nga teg ay leket euh, dafa mel ni da traditionnel balaa añ bi waaw il faut que ñu traditionnel xam nga nag li ma wax sànq rek bu mhm. fekkee ne ñi la dar nii dañu laa dar mm. leket ak i kook ak i layu yëpp sax fi ñu toll nii mm. dafa dagan mm. ndax bu ñu nee yendu demuñu fenn nag Pape Cheikh Sénégal gii la ñu ne te nee nañ tukki fa nga miin jëmbat fa nga wóolu bul fàtte nii tey dañoo mayee benn bàgg or may ko ñi nga xam ñoom ñooy woote bu la neexee ku ci woote nii nga sentir ni war may nga jox ko waa bijouterie limaamu ñoom limaamu waaw ñoo indi bàgg mm. or li nga bëgg wax dama koo bëgg li nga bëgg gis na ni ko waali bëggee mm. man sax dama koy wax su ma naree teral na tekki ceen jox ma <laughs> dëgg la de àddina <laughs> ah, am solo juróom ñaari ceenam rek lay takk de waaw waaw waaw lekkul dara bàyyi ma jël de euh, am nañu ne waa Isia Bouti <laughs> waa ñoom ñoo ko joxee ñoom nag ñoom ñoo di waa Color Me ñoom aussi xam nga dañuy def li nga xam ne moo di parfumerie def li nga xam ne moom moo di euh, euh, ay greffage def I close it.